mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi eh, yi nekk ci gox yi fasantikoo yi man président jamiyatu ansaruddin bu ngiij eh, ñi ngi leen di yëgal sunu gàmmu gin dëgmal le janvier bii di ñëw di ci woo bépp kuréel ñu yore daayira Ansaarud-Din ci biir Jolof di woo suñ président daayira Ansaarud-Din bi nekk waaye représenté fi Ndakaaru di woo président daayira Ansaarud-Din bu Medina Baye gàmmu gi nag euh, ñu ngi ciy xaar suñuy soppe suñuy sang di waa Medina Baye di si jiital sunu xalifa ñi ngi woo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 ci ndigal Cheikh Baba Lamine secrétaire général fédération euh, Ansar du international ci ndigal Cheikh Ahmad Ahmad Dame Gaaj ak ci ndigal mboolem magi dëkk bi sëñ daam mi ngi woo mboolem taalibe yi fu waay mën ne ci gàmmu gi nga xam ne jàpp nañ ko le 11 janvier 2020 di ci woo desal woo ba léegi euh, ñi nga xam ne ay doom mbaayam lan te ñoo ŋànk di ci fii ci réewu Jolof waaye nag fépp fu mu xaddam nekk rek sëñ daam mi ngi lay woo ci euh, gàmmu googu ak mboolem taalibe yi yi nga xam ne ñi ngi aju ci waa Kër Cheikh ci gàttal daal mboolem jullit yi nga xam ne ñuy wax ashhadu an laa ilaaha illallaah ashhadu muhammadu rasulullah sëñ daam am nañ ci conférence boo xam ne Cheikh Babacar ak Tidiane moo ko war a def thème bi mi ngi nekk la vie et l'œuvre de Cheikh Ahmed Tidiane kon nag ñi ci woo ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah auzu billahi min sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi mbokki Djolidi, le 11 janvier 2020 son excellence le président de la république Macky Sall di le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique M. Ali Ngouille Ndiaye le ministre de l'élevage et des productions animales M. Samba Benka, du di honorable député maire de la commune de M. monsieur du haut le préfet du département de Linger, te et ko l'ensemble des chefs de service qui constituent le CDD le sous-préfet de l'arrondissement de Doji et le CLD le comité local de développement l'ensemble des conseils municipaux l'ensemble des chefs de village ak notabilité le 11 janvier Nous ñooy woote suñ gàmm gi la 11 janvier bu neexee yàlla ak yonent ba ñoo ngi woo bépp doomi jolof nag bu nekk ci biir jolof ñoo ngi ci woo Marème Faye ñoo ngi ci woo ah, ah, Gaye jabari Aly Nguy Ndiaye mbooleem ku ne ci Linguère ñoo ngi la ciy woo maa ngi woo waa Ndakaaru sama bokk yi nga xam ne ña nga ca biir géej waaye te jël kaar yi ñu bisi fii ñoo ngi leen di woo maa ngi woo Ndar maa ngi woo Thiès bàyyiwuma bépp jigéen bu nekk ci biir jolof bépp jigéen bu nekk ci biir Jolof rek maa ngi leen di ci suñu gàmm gi la 11 jigéen ñi ngi nag fas yéene leen a takku bu àjjuma am nañ conférence bépp jigéen bu fi ne ñaan nañ yàlla bu takku saanee nga ñëw ci pénc mi fekkee ko bu samedi ak jàmm cérémonie bi bu ko kenn wuute yéen jigéen ñi nag yéen la ñuy takku li ci des dinaa ko jox faati kundul mu eggaleeg ndaw yi waaye bàyyiwuma bépp jigéen susta jigéen ñi ngi. yal na leen yàlla may fan gudd ak ak waccal ñu fi sëñ daam gaaj mu dund lool te yàgg te suñ président bu bees bi yal na yeneen bi oyof tooy ci barke salaat fa mbokki jullit yi asalaamaaleykum euh, ginnaaw bi ñu sante yàlla julli si rasulilaay salallaahu alayhi salaam ñoo ngi dellu di santaat beneen yoon suñu sëriñ Maulana Cheikh Ibrahim Niass yal na ñu ko yàlla fayal Euh, di ñaanal Cheikh Ahmed Dam Khalifa Bay Gaaj yalla yagal ko ko euh, di ñaanal euh, mbokki julit di ñaanal mbokki jolof yëpp di len wax ne rek ñi ngi di comme ni fi fi le 11 janvier inshallah 2020 comme nous faral doon surtout les femmes rawatina euh, la la jeunesse féminine euh, parce que vraiment soxla nañ leen soxla nañu leen da ngeen di war a teew ci organisation yi surtout parce que dañuy recevoir àdduna si yëpp te organisation ku koy wax wax jigéen ñu ngi leen siy ñaan surtout ci cérémonie officielle bi seen teewaay fait tout pour que su ngoon jotee kër gu nekk na génne un certain nombre de femmes ñi solu ba jekk mel nañ war a mel ah fas yéene na euh, ñëw ci cérémonie officielle bi surtout di leen ñaaxaat encore une fois euh, ne gàmmu gi suñu yëf la euh, vraiment nañ ko daan doxalee nañ ñaan yàlla mu may ñu lu ko raw jërë ngeen jëf